ba tey ñu ngi si noosu lu làmb Sénégal ñu fas yéene décoré les meilleurs mais président CRG région de Thiès ak tamit vice premier vice président chargé de la lutte avec frappe ñu ngi lay ziar. waaw mais Nox maa ngi lay ziar di la bégee. Uh-huh. di rafetlu lool jotaay bi di féliciter une fois de plus axlu làmb Sénégal. mais ñu ngi lay féliciter yow tamit si li nga xam ni moom lañ la jagleel euh, bërki démboo Ndiaye bu yàggul. ñu ngi la siy félicité di la kontaane tey nan nga ko mën dundee ak lan nga ñu mën a wax waaw mbégte bu rëy lañ ko dundee mbégte bu rëy a rëy eh, balaa loolu ma sant gërëm bu baax a baax samay waajur sant yàlla bu baax a baax également eh, sant gërëm également ñëpp ñi nekk si làmb ji que muy département de Mbour que muy région de Thiès. parce que vraiment lii yëpp bu amee gannaaw yàlla département de Mbour la d'abord ñoo ma gis gunge ma tette ma ba waa Thiès gis ma tamit gunge ma tette ma ba tey ñuy wax euh, Maïssa Ndiaye euh, national donc euh, mbégte boobu laa si am muy mbégte bu rëy a bu fort également bu bu ma animé mais également di sant yàllaat bu baax a baax également parce que xam boo dee des millier de sénégalais nga mu bokk si ñi mujjee ñëw si millier de la lutte par exemple Euh, yàlla def bu ñuy tànn parmi les dix boole la si cité la si kooku da sant yàlla bu baax bu baax a baax sant ñëpp ñi nga xam ni ñoo la dooleel kàttanal la ba nga egsi fii tey jii nii loolu nga sant ñëpp gërëm ñëpp mais tamit dañ naan làmb mbuur bañ ci nekkee ba tey amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon lépp luñ lu nekk ñun waa mbuur surtout man à personne man dama naan félicitation à Maysa mais tey jii Maysa dafa ñëwoon si gaalu dof yi ba tey jii muy chaque jour moom amul reculé day gën xuus rek te dañuy gaalu dof la dugg euh, waaw maa ngi rappelé wu sama première phrase ndeysaan euh, c'est l'occasion ma incliné wu tamit devant la mémoire sama xarit bi nga xam ni moo ma dugal si làmb pour la première fois muy Badou Fall Sène ndeysaan may fal vice président te altine bi paase rek rek ma ñu ngi toog di si waxtaan mu xëy talaata wuyu kon moom lay njëkk a rendre hommage lii moo ma njëkk a toog benn bis ni ma président kañ dem seetaan loolu di nuwoog woyu làmb dafa mel ni làmb la ma tontu woon ko ni ko booy man yëfi dof yooyu duma fa dem mais ba ma demee ba seetaan xool cadre bi xool situation bi laa ne ah non lii nekkate du yëfi dof lu ñu xamul la donc si le virus bi duggee euh, ñu siy dem di si dem en tant que promoteur di si dem en tant que président CDG bu Mbour di si dem en tant que président CSG bu Thiès ba tey yàlla def li donc vraiment daal yoon la euh, yoon la bu ñu topp euh, ñàkkul nag yàlla nii la ko doo jaaralee mais yoon la bu ñu topp di ko di si sant yàlla bu baax a baax te comme li may wax nag yaa ngi may sant mais man it damay sant ñi nga xam ni ñoo tax ñu may sant tey muy vraiment waa population Mbour muy la population région de Thiès sincèrement équipe yi ma doo àndal di liggéey doo si xam kan mooy kii kan mooy kee euh, vraiment c'était une équipe au complet on sa complétait mutuellement ku si nekk secteur bi nga féete euh, faay bu fa nowoon am jóge fa keneen ki féete beneen secteur bi dina ñëw solutionner faay boobu ba problème du am donc loolu daal moo waral euh, récompense yi ñuy sant tout le monde di remercier vraiment tout le monde. mais mën nañoo xaar tamit ci CNG bu bees bi en tant que vice président premier vice président chargé de la avec FRAPP texte yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ñu changé ko wala dañuy continuer texte yooyu. mën mënuñoo changé texte yi xanaa jubbanti wala gën ko defaraat xëy na am na loo xam ne biñ koy bind en telle année. looloo nekkoon contexte bi contexte boobu mën na évoluer en plus comme mën na évoluer en moins donc rien nu nous interdit ñu toog waxtaanaat également xam ni paramètres yi taxoon ñu génne bii texte valable tul année 2021 donc loolu rek lañu ma la ñu war def te loolu ça va se faire autour d'une table tous les acteurs ñëw ku si nekk position bi nga féete section bi nga féete nga indi sa expérience indi sa xamxam indi sa gëm-gëm ensemble ñu daal di définir texte yu leer yoo xam ni une fois que ñu définir ko nag mu des li gën a am solo et looloy catu làmb mu des li gën a am solo muy nit ñi xam ko comprendre ko noonu nangoo ko noonu tamit. mais gars yi nee nañ tamit euh, euh, ministre des daa def li ko neex ndaxte euh, bi mu consulter gars yi ñun moom waa lutte simple sax du dinaa ko kaas consulter wuñ kenn lu bokk si lutte simple mais tamit en plus ñu ni tey bu fi jëlee Alioune Sarr ñëw teg ay poulain Alioune Sarr mel na ni Alioune Sarr moo ko waaw xam nga man lan laa bëgg a comprendre mooy lan lañ lan lañ reproché Alioune Sarr. dafay yàgg. si li ma dégg. waa dafay yàgg ñu indi quelqu'un d'autre léegi bàyyi nañ dafay yàgg dañoo dañoo indi simplement le fait que euh, ni ñu koy tuddee le fait que poulain Alioune Sall lañu ñu indi. donc man daal vraiment j'aurais compris ñu ne euh, kii baaxul parce que lii kii baaxul parce que lee mais kii baaxul parce que simplement poulain à Sall la au contraire Alioune Sall tant qu'il vivra ñu ngi ñaan yàlla mu gën a gudd fan lool. làmb daf ko soxla duñ jël ku def vingt six ans si làmb mu dem di noppaliku ji nga jël expérience am ak xam-xam ni ko soxla wuñ ko teg ko de côté kon defe naa même bu dee du woon ay poulain Alioune la personne x bu mu mënti doon la mu woon njëkk def mooy jël Alioune teg ko si côté def ko conseiller spécial parce que vingt six ans du caaxaan ku la jiitu si benn mbir pendant vingt six ans lu mu tuuti tuuti moo la ëpp xam-xam lu mu tuuti tuuti lépp lu mu wax foofu alxuraan la. kon ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane. jërëjëf Ndoye et félicitations à Ahlou Sénégal